jot jottali jëme ko ci kilifa yi waaye jëmee ko ci mbokk yi ak mbokki taalib yi xam ne ñoo waral jataay bi yépp sëriñ bi wax ne ginnaaw bi mu sante subhanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi delluwaat di gën a jox boppam Seexul Xadim ak waa këram di yokk yaakaaram ak pas-pasam jëme ci moom mu wax ne it ngi sant ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër gi di Daaru Xudoos te nekk ci ay kilifaam muy Serigne Cheikh Madina ak Serigne Mustapha sëñ Sidi Maxtaar ak sëriñ Ahmadou Maxtaar mi xam ne mooy kilifa ñu ñëpp waaye cant yooyu yi mi ngi ñaan sëriñ bi jottali ko xalifa général des Mourides sëriñ Muntaxa di wax rek ne amut di leen yëgal ren yéen yéen ñi xam yéen a waral bis bi ne amut jenn yitte joo xam ne gën na koo ñor tey seen jataay bi ndax jataay la bu xam ne moom rek moo ko fi bàyyi ngir ñi mu wuutu ak jataay bi ñu fi amoon muy ànd ak mbokki jullit yi ànd ak mbokki taalibe yi ci ndigal ak i tere waaye di dundal lislaam ci anam yi ko sewul xadim jàngale kóllëre googu nag du dog mukk ginnaaw ku fi ne da fi jógee li ñu war ñun ñu fi dese di mooy di leen ñaanal ak di leen fàttaliku mu wax ne moom loolu mosu cee jóg te loolu rek moo waral jataayam bi kon yéen ñi ko taxawal fii tey di ko def moom ngeen ciy dimbali ngeen def ko ba noppi ngeen jébbal ko ko nee na lépp jël na ko jébbalaat ko sëriñ Ahmadou Maxtaar mu jébbalal ko fi nekk Seexul mu eggale ko fi mu war a jàll fépp ndax ñun ñëpp kenn ku ne xam na ni. sëriñ bi musta ñaanal ak njabootam kepp sëriñ bi musta ñaanal ñu ko yaakaar kepp waaye sëriñ bi masaan di ñaan jullit yëpp lay ñaanal wala jaami yàlla yëpp kon ñun ñëpp xam nañ ne loolu ñëpp xaj nañ ci te loolu moo war a nekk taxawaay bi kon mu leen di xamal ne am na ci yéen mbégte am na ci yéen mbégte lool li tàmbalee nag ci section bii nga xam ne moo ko def moo ko taxawal ñi mu bokkeel fédération bi yëpp te ñëpp tey am fi ay représentant ñëpp am fi ay ndaw yu leen teewal ak ñi xam ne ñoo jiite fédération bi commencé ko ci président bi ba ci responsable yëpp xam na ni li waral lii mooy ànd bu dëggu ca yàlla tax ànd lislaam ci ñu ko suñ borom diglee mm-hmm. waaye mën a dundal sunu taalibe ci dimbalante ci fànn yëpp ci genn fànn gënu ci màgg gi ngeen di def kon loolu nee na moom it amel na fédération bi njukkal ci ak cant di leen sant di ñaan yàlla ah, fi ko boroom mi ko taxawaloon ca yaxal ko bind ko ci ay kayit ñun ñëpp ñu xam ab joxoñam fa mu bëgg ñu eggale ko fa yàlla dimbali nu ñu eggale ko ca muy ndam ñun ñëpp ñu jariñoo loolu la waxoon ci gàttal ne. Euh, comme waxtu yi dafa xaw a gàtt nee nañ ko santal mbooloo mi ca ñaanal leen ci doolu leen a dénkaat ngeen gën a góorgóorlu lu ngeen góor woon ngeen gën koo góorgóorlu ndax li tax li tax ngeen man lii du ay caaxaan jëlale naa man ngee jàng ak yéen gee jàng waaye xel ak yéen pas-pas bi leen jàpp ci seen xol ca muy dëgg ci yéen ngeen bàyyi seen yitte yépp kenn ku ñu muñ sa bopp muñ say soxla muñ sa njaboot ñu toog fii yendu fi lépp kenn kenn ku ci ne booy dellu fa nga jëm yaay yaa yaa fay yóbbuwaat sa bopp yaakaar jooju ak pas-pas boobu loolu la soxla ci yéen nee na nag na ngeen ci gën a góorgóorlu ci xam ne lii ñuy defal ñii fi jóge tey bu ëllëgee danañ ñu ko defal kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh